juróomi fan ginnaaw bi mu tekkee ndombal tànkam ci équipe nationale bi Moustapha Gaye dal dinay bàyyi tamit direction technique nationale bi boobu leen dogal bàyyee ko ci ki fi doonoon DTN jur na coow ñu dal ci kawam fu ne tafaa nag jamono ji ay civil bu Ndakaaru ak président om ñu ngi koy jàppale. on lui fait un mauvais procès parce que pensant que <clears throat> le Moustapha Gueye voilà ak liggéey bi muy liggéey fédération liggéey bi baaxul que dafa violent et tout ça donc contre vérité yooyu lañ doon ñëw ne dinañ ko dindi rétablir li am parce que Tafa Gueye ku ko xam-xam ni su euh, techniciens yi nekk euh, Sénégal yëpp am ku ci gën a titré donc jox na Sénégal raaya bu nekk par rapport si basketball def na liggéey na fi lu ne def pour pour basketball sénégalais donc mérité wul attaques yi ñu koy attaqué yoo xam ne attaque yi yoo xam ne pour man amul fondement. ma jaaw li mu ñaaw lay te bokk na ci taxawaayu instance dirigeante bi yore lépp lu jëm ci wàllu basket moom nag jox na dëgg.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 ki fi doonoon coach bu équipe nationale féminine bi di dikk ci lan moo waral mu dal di bàyyi gay moo nekkoon directeur technique national lu toll ci diirum ñetti at mu doon boole boobu boobule fonction ak entraîneur principal.